ñu bàyyi xel mbiru góor jigéen li muy doy waar doy li ma ci wax mooy nit ñi nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ni nga xamee ne noonu lay tasaaroo tasaaroowee ci àdduna bi ak ni muy tasaaroo tasaaroowee ci réew mi ndax lii ay jamono man sama bopp waxoon naa ne dinaa ci def benn xeetu alert ndax ñii tëb nii di wax naan waaw lii nangam di wax naan lii nangam ay diine nii nangam nangam xeet googu nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax benn mbir loo xam ne dama koy bàyyiloo xel nit ñi ñu bàyyi ko xel mbir la moo xam ne mu ngi yaatu yaatu guñ bàyyiwul xel ci ñu bari te fuñ ko foogeewul sax daf fay jaar ne nit ñi bàyyi xel ndax ñu ngi wax naan ñi koy nekk ñu ci bari ay ndaw lañ parce que am na ay mag ñoo xam ne dañuy yor seen alal ñëw di corrompre xale yi ndax xëy na amuñ te jamono bi xale yi lu ci bari dañuy bëgg a fu fuñ tolleewul dañuy bëgg wane loo xam ne nekkul ci ñoom su ko defee nag ay bunt yooyu fu mu ubbee ci ñoom des fois dañ ciy profité mais am na xale yoo xam ne tamit dañu leen di forcer di leen ko def te loolu lu mat a bàyyi xel la ndax ñun bëri na ay écho yoo xam ne dañ koy jot yoo xam ne ci ay daaraak xeet yooyu lay jóge yoo xam ne war na tax ba sax ñii yëngu ci daara ñu gën a wagar ci seen bopp ñu gën a bàyyi xel ci seen bopp gën a bàyyi xel xale yi ngeen di jox su ko jaree sax ñu wut ay vidéo surveillance di ko def fi xale yi fa ñuy tëdd ñoom seen bopp ngir di saytu ndax liñ ciy jot ci ay xeetu écho bari na lool ñoo xam ne loolu lu mel noonu tàbbi nañ ca te ñoo ngi ko tàbbee ca fañ doon jàngee ca foo xam ne kat dañ ko foo xam ne dañ faa yaakaaree woon diine yaakaaree woon fa xam-xam ñu def lu mel noonu ca ñoom te lii képp ku ko bëgg a xeex li may wax ne xeexu xam-xam la ci xale yi ngay tàmbalee sensibiliser leen delloowaat xale yi ci valeur yu mel ni doylu delloowaat leen ci valeur yu mel ni mbañum rus ndax ay mbir la yoo xam ne yu mënul ñàkk la suñ ko deful rek lu mën a xew dañuy échec